asalaamaaleykum yéen waa Leuz TV man la Birane acteur ci série yu taxi. Moustapha Ngom nekk acteur ci série yu taxi. man la ñuy taxi. bonjour et bonsoir à tout le monde man la Kodou euh, dans la série You Taxi. moi monsieur Koumé. c'est Mariem de You Taxi. ayca man bu You Taxi mooy wax ak du ay fo du ay man la Seydou Camara artiste comédien. man la Alioune Mbaye waaw vous souhaitez longue vie détermination et objection de la vie professionnelle avec 2018. une bonne fête de fin d' année 2018 ak xeelu xéewal ak xaalis ànd ak jàmm ànd ak mbëggeel. atum jàmm projet yëpp nag yàlla moo tax biir at mi ñu war heureuse année di leen ci ñaanal yàlla dafa leen ci jàmm ak xol yu bëri yàlla boole xol nekk benn ñëpp jubóo maa leen ko ñaanal yàlla leen ko yàlla defal. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde di leen ñaanal jàmm di leen wax euh, yàlla na leen yàlla suturaal jàppale leen si lépp li ngeen di entretenir. Je souhaite une bonne et heureuse année à l'ensemble des Sénégalais qui nous regardent sur Blaze TV. On vous souhaite tous nos meilleurs vœux. Que cette année soit remplie de bonheur, de joie, de paix et de prospérité. yàlla na nga am ñaareel yàlla na xéwal bu bari wér wér wér le lan doon seet ci 2017 te jotuñu ko gis yàlla nañ ko witt ci 2018 bi ñu leen koy souhaité am na yu bees yu waay di ñëw. peace and love Leuz TV la wax. sinon dama leen bëggoon may fii sax benn bu ndaw mais xam nga bonne heureuse année bonne ananas bonne jàmm. mu may leen benn bu sew rek xaar leen ma imiter leen daawo waaye yus faya Youssoupha tey moom daa am lu la neex de ah Youssoupha yow da da da ñëw tëdd ma lii ngeen ma tiimale fi ma xaw ma waaye bilaay bu leen ma rey rek. moom bu doon rey ku artiste yëpp dee na. asalaamualeykum adduna asalaamualeykum internet Leuz Média maa ngi leen di souhaiter yéen ñëpp une bonne heureuse année année de santé année de bonheur prospérité. lépp luy xéewal nit bëggu ko yal na la ko yàlla defal yal na yàlla may ñu wér yal na ñu yàlla may gudd fan yal na ñu yàlla sàmm sàmm suñu njaboot sàmm njabootu mbooloo mu jullit yal na ñu yàlla may lu ñu def ci poche yi lépp lu nit mbébét yal na la yàlla defal lu kawe sa njot yal na yàlla boole xol yi ak xalaat yi ñu doon benn yàlla ya tàppe xol yépp ñépp nekk benn li xew bitim réew jaaxal ñu yàlla na ko yàlla seral te mu bañ fee ñëw yàlla nañ yàlla def ñépp nekk ci jàmm 2018 bii ñëw dugg yàlla na nekk atu mbégte atu bànneex atu xéewal te ñu leen di bégal fu ngeen toll nag ci kanamu Leuz Média waa Leuz Média nag kenn du yéen yàlla na leen yàlla fay